maître non xool ko sooful de mën na tax góor gu mënul téye boppam xalangu ko amul personnalité dëgg boo jàll ak moom. mais maître am fula am fayda mais li ngay wax nii day tax xel yu bari ñaaw. ci dama dégg benn chroniqueur ñu koy wax Cheikh Bara Ndiaye mu ne aji Adji Sarr am na benn audio bu mu def di ci wax lu bari ci ay góor ak ñeneen ak ñeneen. yow yow kooku nga xam ne tekkiwul dara. d'accord. nga xam ne Euh, xaw ma affaire euh, ja jabar sëriñu jabaraan yooyu la doon loolu man li mu wax laay wax waxuma li muy Baara Ndiaye boobu man li mu wax laa wax genre li muy liggéey loolu liggéey genre Baara Ndiaye waaw ak ñi mel ni moom ok genre imaam yooyu non xam non yow yaa ma ni dafa jongo ma yaa am noo apprécier ndaw si waaw moo tax ma wax la audio bi ma dégg ni moom wax na ko te tôt ou boobu dina ko génne wala di génne ko yow ko xam waa jooju nga xam ne moom gémmi gi euh, fenn ba nëpp Cheikh Baara mooy le

lépp loo def la arrangé wul mu dem la fenal Sonko sax gis nga élément bi jàpp ko fenn fenn ba fenn ba fenal Sonko ba yàq Sonko naan Sonko kat affaire moom la kat gis boobu gars yi génne ko xam sa lu muy wax. d'accord voilà. maître Cheikh Bara fenn ba fenal Sonko li déet. Euh, te moom lay défendre. alors ñu ñu. yàlla ko mais non xam nga man da maa wax rek. a bëgg ma apprécier loo. non dama ne gis sëñ Bara muy fenn di fenn Cheikh Bara moom. ma wax ba génne ni Sonko bi li ñu ko waxal moom la. nga gis nga élément boobu kii teg dara day wut tur xam nga Sénégal yow da nga yow da nga nekk jaar oxygène wal fajar yi def fa épreuve TFM soxla la jël la ñii dañuy dem ci télé yu ñàkk fayda yooyu toog fa télé anti Macky Sall yooyu anti pouvoir fa la fa lay nekk day évoluer di saaga rek di yàq ñi dara ñi tekkiwul dara di wut bës wut tur ñii dañoo feebar feebar wut tur lañu yore d'accord man mooy nekk université yi dama ooyee leneen la am tur macha allah man mooy nekk député du peuple ma ne député ci université di defar étudiants yi ma dama am jaar-jaar mais du ma moroom ñi nga xam tekkuñ dara waaye ay charlatan yi bon yi. dafa am loo loo démarré léegi ci sa émission muy euh, troisième candidature au président de la république. Mhm. dégg nga boobu ba léegi ñu bari ñi nga xam ni ñoo nekk ci APR. Mhm. di ko brandir. di mhm. ko wax. mu mel ni am nañ ci yéene ñoom waa APR am na sax ñoo xam ni def nañ ci presque ay ndaje wax ni euh, tabb nañu Macky Sall mu nekk seen candidat en 2024. am nañ ci droit yaa ngi ci biir benn Bokk Yaakaar. loolu mës a nekk loo xam ne mësuloo ci d' accord. doo ci mës a d' accord. ok xam nga Pape Ngagne Sénégal yëpp laa bëgg jox ma est ce que mës ko dara man génn ci bi ma nee Abdoulaye Wade amul def troisième mandat dama ci xeex bien bien le 23 juin parce que après le 23 juin la woon bii wax ni dafa bëgg def troisième mandat te même bu ko bëggoon danaa ko ci génne en tout cas daa ci def lu mu mën. ndax lu ko lu rafetal dara rek laa bëgg ndax suma xarit dëpp ñu jàng école ba léegi. Mhm. te euh, moom li mu def kenn su ko fee def. Mhm. kenn du moom en Afrique léegi Sénégal dafa am leadership monde bi fu ñu toog ki day ñoo toog présidence Union africaine bi ni mu ko jëlee benn président euh, Afrique ma su ko jëlee noonu sérieux bi dem di toog ak ngand yi ngand bu ne toon naa yow sommet bu ne dem na fa. su ne rehausser na prestige Sénégal comme ni ko Sadio Mané rehausser c' est extrêmement important donc mais nag lu ne day jeex lu lu nguuru yàlla dañ ko ñaanal mu terminer deux mandats defi leneen ndax dañ koy soxla feneen. d' accord la présidence de la république. maître ku bëggee Macky Sall ku ne da ngay ànd ak moom. ci li ci li nga xam ni. loolu laa gëm mooy day def deux mandats bàyyi bu ko neexee mu ñëwaat parce que bu ñëwaatee. ku fi fekk dalay balay de toogaat. d'accord maître yow juriste nga tey bu ñu demoon ba candidature am dem conseil constitutionnel ñu valider ko nan ngay def. fekk man candidat la. ñu valider ko laa la wax. ñu valider candidature man non gëwuma loolu. no bu ñu sukkandikoo man ci ay ay ay spéculation non bu ñu sukkandikoo ci mandaa bi juróomi ña juróomi at la. dé ko man mi la mandat jeex na 24. ku ba ngay posé boobu question. ok dama dama da nga dégg am na droit ci beneen mandat. non déggu man man maa la laaj. dama man maa ni bu ñu demee ba conseil validé. candidature am waaw loolu loolu si ñëwagul est ce que man représenté ba loolu di ñëw bàyyi leen affaire troisième mandat bi man sax dama ne du ma ci waxate parce que ñëpp xam ne sama position tranché mais après am nañu droit ne ñoom Macky Sall lañu toujours mhm. yow man nga tere ay nit ñi suñu président lañ bëgg bu àdduna bi ndax moo ñu gis ñu ku ko mën am nañ ci droit mais man ne dama yor sama parti am sama xam-xam jàng droit ni président amul droit troisième mandat. Mhm. assumé ko nag parce que man intellectuel laa te dama jàng d'accord ànd ak moom ci ngor ma sopp ko mu sopp mu ñu ay xarit yu wóor xarit bu ñëw wax xaritam dëgg du xarit xarit sa géer gi xasal na sa doomu ndey moo la koy wax ku la sàngul sa taar la bëgg donc man ma xarit boo xam ne su ma xarit du ma ko dara Macky ma connaît tellement bien même tellement bien man ma bëgg koo ma nit ñu nekk ay vrai xarit xam naa ne sa neexul ñu bëri mais loolu yàlla moo ko def mais du tere ma ko dëgg nag Pape Ngagne nañ bàyyi naan Macky Sall est-ce que am na droit troisième mandat loolu yoo xam jotagul Macky mu ngi liggéey ñu ngi ci tali yi ñu ngi ci terre bi ñu ngi BRT la xaw ma ñu ngi ci defar cité religieuse yi ñu ngi ci université Amadou Mahtar boo bërki Dembo njaay mhm. mais Sénégal macha allah macha allah ñi am ñu ay ay ay terroristes yu ñëw ci réew mi ngi yéen nañu ay Mali comme li fa am ak Guinée bëgg instrumentaliser jeunesse bi xale yi ba ba téye leen këf réew mi indi fi dictature Hitler mais sa waay ñaari point laa bëgg soulever foofu benn bi nee na fii quelques mois maay nekk président bi mu menacé juge bi amul ma ko wax bu yéen ñëpp danaa régler seen problème wax na nga wax ko bi mu génnee première audition ba dépassé bi menacé dans dans quelques mois je serai président loolu la wax. waaw. 16 d' abord moom moo yàlla léegi mooy yàlla moo xam mais président kenn du ko nekkee noonu bi ci des. ah kon moom bu nekkee président bu ne moom nga war a wax ah. déedéet politicien buy buy dem ci rendez-vous électoral dans treize mois may nekk président wax nga loolu li mu ci jublu wax lu ko indi. ok mooy yéen ñoom procureur yëpp daa ko digal ak yéen. di nit ñi mu ne kon moom bu jëlee pouvoir bi ah, li mu sosal ñoom Antoine Diome ak ñoom Macky Sall day instrumentaliser donc justice bi pour fayee ko ci Pape Ngagne Ndiaye procureur fayee ko ci Lamine Ndiaye juge d'instruction ci tel ministre de l'intérieur un ne moom du du démocrate mais bi ci des mooy séparation des pouvoirs bi jëpp Pape Ngagne maître pouvoir exécutif. man wax nga demaat judiciaire bi lay demaat judiciaire moom gëmul gëmul. la séparation des pouvoirs d'accord. ok troisième mandat bi rek nee naa ko pare amu ci droit Macky Sall. d'accord dama ne bàyyi leen di wax affaire troisième mandat bi. d'accord loolu leer na. parce que moom wax ko ci. ok on ne peut pas être plus royaliste. que le roi bàyyi leen Macky Sall mu ngi liggéey jàpp leen ko mu liggéey. am ndam ci li ci beneen wàll bu ma bëgg ñu ñëw ci. mooy li xew assemblée nationale. Ah. nekkoon nga député vraiment ni nga koy waxee bagarreur. lu ne hmm. gis nañ ko assemblée nationale nga taxaw ko. Hmm. ndax jàpp nga